asalaamaaleykum maa ngi leen di nuyu maa ngi leen di ziyaara maa ngi leen di ñanal yal na leen yàlla defal jàmm li may wax nag sama biir xol laa ko tibbee moo tax vocal mënuma ko bind sax dama koy vocal Adama Faye man aw lu ma ko fayee dama koy bàyyi yàlla mbaaxam ñi ma ko waxee ca mbuur ma defoon accident bu metti bu méttee métti ñëw ci buntu jàkkaam jooju trois heures du matin toog ci buntu jàkka ji sama tànk yépp ñu feere ka kaw ba suuf mu ñëw rek gis ma dimbale ma te yàlla tax mën naa ne man bu may nooyi heure bii yàlla ak moo tax yëkkati xaalis bu bari jox ko doomam mu jox ma ka ma di ko gërëm di ko sant dama gis rek ndimbal li nga xam ne moom la ñu wane ci Facebook bi mu ko doon def Grand Yoff ma ne xaar ma profité ci occasion bi man ko gërëm ndax aw ma woon occasion pour man ko gërëm sant ka moo a jox xaalis ma dem hôpital ñu faj ma ba ma wér wax dëgg yàlla maa ngi koy ñaanal yàlla na yàlla may gudd fan may ko wér lépp lu mu mën na ko yàlla dooleel yàlla na ko yàlla làqu làqu yàqu ci barke Cheikh Tidiane Chérif ci barke Serigne Babacar si kontaan nañu lool ñu ngi koy ñaanal di ko sant di ko gërëm jërëjëf. salaamaaleykum sang man Mbour laa dëkk maa ngi dëkk mbuur mbuur quartier bu ñuy wax jàmm gan foofa laa dëkk wallaay benn waay moo ma fekk ca tefes ga ma toog rek ak samay rangooñ mu ne ma yow mii demal ndakaaru ci Adama Fay dina la dimbale moo ma tegtal foofu ma teg ko yoon bi rek ñëw ba foofu wax dëgg yàlla te lim ma ko waxee rek noonu la affaire ba demee man damaa ñëw rek toog si bu jàkka ji mu génn rek xool ma rek ma génne sama kayitu hôpital bi wan ko mu jox ma xaalis bi ma dem faju ji billaay sama xol bi dafa sedd guy bi ma ñëwee dëkk bi suñu koñ bi yëpp yëpp yëpp di ko waxtaane ñu bari xam nañu ko foofu nag te gisuñu ko ndax mbaaxam moo egsi ba foofu wallaay azim kontaan nañu lool kontaan nañu lool lool lool lool yal na ko yàlla jàppale yal na ko yàlla sàmm yal na ko yàlla yiir yal na ko yàlla aar ci barke Cheikh Ahmed Tidiane Chérif wax dëgg yàlla kontaan lool lool yal na yàlla sàmm yal na ko yàlla musal ci noon musal ko ci pexeb noonu ndax ku fekk nit ku jàq nga xettali ka wallahi yàllaa ngi janoog yow yàllaa ngi janoog yow de jërëjëf kontaan naa lool lool lool lool lool alhamdulilahi rabbil alamin jërëjëf